Samba Danfara ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Sylvie. Euh, yaay président coalition priorité emploi. oui euh, laaj bu njëkk bi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, li mu euh, bëgg rek moo di sukkal li nga xam ne moo di liggéey fii ci Sénégal ci noone nag nee na dina harmoniser agence gouvernementale yi nga xam ne moo tënku ci entrepreneuriat waaye itam xëyub ndaw ñi dina yokk budget ministère du travail li mu bëgg itam bokk na ci créer benn agence bu mu duppee gadget maanaam grande agence gouvernementale gouvernementale montation l'emploi et le travail ak yeneen yeneen yow déjà euh, ban appréciation nga am ci mesure yooyu nga xam ne moom jël na ko. Euh, di féliciter président euh, Bassirou Diomaye Faye ndax bu mu buñ ko installer ba léegi wax ay waxin yu muy def discours yu muy def ak jëf yi muy wone wone na ni moom xam na lim nekk jafe-jafe réew mi ak soxla waa réew mi te si soxla yooyu eh, ñàkk xëy nekkoon na nekk na soxla boo xam ne ñun xalaat nañu ne mooy soxla bu gën a jàmp ci soxla yi yëpp te donc baax na moom mu am ci ay xalaat saay mu waxee ci ñaari discours yu muy def gis nañu ne ba léegi instant boobu ba xëy mu ngi sóoraale li nga xam ne mooy ñàkk xëy ndaw yi eh, ma am yaakaar ne eh, su fekkee lu mu nar a def yëpp ak lu mu yaakaar ne dina ko def bu ko defee yaakaar naa ne mun na am euh, lu lu lu yëngu ci wàllam xëyum ndaw yi parce que depuis mille 2012 ba léegi situation bi avancé wul dafay gën a delloo ginnaaw rek. faisabilité bi naka la nar a demee ndax yaakaar nga ni li ni mel dina ko mën a def. waaw mun na ko def. Euh, ci ay ay conditions la. condition bu njëkk bi moom commencé na ko def mooy may euh, yaakaar xale yi. may yaakaar waa réew mi mm, nga xam ne ñoom mun nañu togg fii xam ne dina métti waaye lu muy métti métti bu muy ci mujjantal bi day fay dafay neex donc loolu may yaakaar askan bi te gis naa ne ñaari waxam yëpp ñaar discours am yëpp may na yaakaar euh, réew mi ñaareel bi mooy fexe ba ñoom su fekkee dañuy wax woo Sénégalais yi ci liggéey ci jub nañu jub en tant que jiit nañu euh, xam ne ci waa réew mi yëpp lañu fi nekkee nekkuñu fii pour euh, euh, seen i waa parti rek wala ñuy ànd ak ñoom mais dañoo nekk fii pour waa réew mi yëpp maanaam jub boobu ak exemplarité boobu buñ koy def loolu lu lu am solo la suñ ko defee dina baax ñetteel bi mooy nañu fexe ba maanaam dundal li nga xam ne faydal liggéey ci réew mi soxna Sylvie boo xoolee réew mi ñu bari dañuy liggéey mais liggéey taxul nga am liggéey taxul sax nga am as tuuti te loolu astuti boobu tant que dañu mayul fay fay ñu liggéey ngay gis ay nit yoo xam ne du ñu liggéey ñu am alal ñoo xam ne ñu ngi liggéey du ñu am alal dañuy gën ndool loolu mooy indi donc ñu faydal liggéey bi defal liggéey liggéey bu rafet mu nekk loo xam ne mun na nekk li nga xam ne moom la gouvernement di def e di encourager population bi tam ñu dem ci dem dina boobu mais ñeenteel bi li nga xam ne moom moo gën a am solo ci man mooy nguur gi il faut que am xaalis xaalis nag ak façon bi nga xam ne sunu nguur yi noonu la ñu utee xaalis dem ci nasaraan yi taal seen lox loolu du faj suñu soxla parce que ku la boo demee fenn ngay dañ dañ lay saraxu donc lu ñu lay jox du mun a faj say soxla bés bu nekk da ngay nekk fii di ñaan rek di ñaan rek di ñaan rek loolu mënul nekk il faut que donc ñu uti ay pexe yu bees pour que xaalis bi mu gën a bari ci réew mi ñi nga xam ne dañoo bëgg liggéey bu ñu soxla xaalis pour liggéey pas pour caaxaan mais pour ñu bu ñu soxla xaalis pour liggéey ñu mun ko am soit à travers banque yi wala ay fonds d'investissement public yoo xam ne dañ koy taxawal ci réew mi. Mm-hmm. donc gis naa ne loolu instant yi pré président de la république ak gouvernement bu ñu ko defee rek. E, bu soobee yàlla dina dina saafara e, ñàkk xëy ndaw yi. E, ndaw yi amul xëy fii ci Sénégal bu ñuy bu ñu koy lim fu ñu toll Tamba. fu mu nekk nii mun naa wax ne ñaari million ci doomu aadama ñu ngi ci biir réew mi xamuñu nu ñuy def maanaam di banque seen loxo ndax amuñu benn ité boo jëlee tam ñi nga xam ne am nañu ite téeméer boo jël juróom fukk ak ñeent yi lu ñu am ci ci weer bi motul fukki junni. kon loolu nekk na problème mun nañu wax ne nit koo xam ne dafay liggéey weer bu dee li mu am motul fukki junni mun nañu wax ne moom ak kii dul liggéey benn lañu parce que plus muy liggéey plus muy gën a ndóol ñeenteel bi ñetteel chiffre bi nga xam ne am na solo mooy téeméer boo jël Sénégal mun naa wax ne juróom-ñeent fukk ak juróom yi e, amuñu liggéey bu bu bu bu baax ndax liggéey bi ñu am mun nañ ko ñàkk instant bu nekk maanaam kenn mun na ñëw ne leen bàyyi liggéey bi daw suba bul xëy. wala weer bi mun na dee seen payoor munuñu ko jot ndax liggéey bi ñu nekk dañ ko amul fayda donc loolu nekk na loo xam ne si ñetti chiffres yoo xam ne wane na ni Sénégal fu mun toll nii loolu mooy expliquer ndóol bi loolu mooy expliquer eh, mbëkk mi loolu mooy expliquer jafe-jafe yu bari yu nekk ci biir su biir société bi donc bari na bariwaay boo xam ne su may dégg ay nit ñuy wax ne eh, du Sénégal rek moo xam soma déedéet lii xew Sénégal Sénégal la xew. xawul feneen parce que jafe-jafe bi nga xam ne am nañu ko fii pour am liggéey wala boo amee liggéey pour fay am am am njariñ ci liggéey boobu dafa des donc il faut que ñu sukkandiku si suñu réalité yi xam ne instant bi loolu moo war a nekk suñu liggéey ñun ñëpp liggéey gouvernement ak liggéey askan bi pour ñun ñëpp ñu boole suñu doolee yi pour mun a fec eh, deñ loo li nga xam ne mooy ñàkku xëy ndaw yi ci réew mi Mhm. Euh, ki fi nekkoon président de la république bu Sénégal di Macky Sall euh, amoon na ay jéego yu mu jotoon a teg euh, ci mel ni DER ANPEJ programme xëyu ndaw ñi yeneen nag yeneen ndax jàpp nga nii dañoo war a sànni loolu lépp recommencer à zéro. déedéet mënuñu ko sànni ndax ay borom xam-xam yi ñoo ko ñoo ko gëstu ba di ko di ko def ci réew mi te ñooñu demuñu politiciens yi ñoo dem mais ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi nekk ci biir état bi. wala nekk ci biir société civile bi nga xam ne ñoom ñoo participer pour taxawal yooyu projet ñoo ñu ngi fii ba léegi te projet yooyu ay projet yu baax la woon ci njëlbeen maanaam ni ñu ko xalaatee waaye ci jëfin bi ci doxalin bii la amoon ay jafe-jafe ba tax ne eh, boo jëlee programme bu mel ni Prodac nekk na programme boo xam ne am na fu am na am na solo lool lool te yaakaar naa ne programme yu mel noonu du ñu disparaître dañuy continuer di leen am waaye doxalin bi moo war a soppi ndax eh, boo xoolee ni ma la noo si ci njëlbeen Eh, ci réew mi depuis 2012 eh, ñàkk xëy liggéey bi day gën a day gën a tar ci réew mi donc ça veut dire que li ñu doon def baaxul donc loolu il faut que ñu xam ko doxalin bi moo am problème moo amee jafe moo am jafe-jafe waaye agence yi nga xam ne am nañu agence yooyu am nañu solo te war nañu continuer di am solo mais ñu soppi doxalin yi suñu soppi doxalin bi rek dina mën a nekk mais suñu soppiwul doxalin bi ñu changé ay tour rek eh, loolu dana dana jafe dina am jafe-jafe état tam dafa war a xam lan mooy tax fan mooy taxawaayam état nekkul banque donc état munul nekk fii di lebal di lebal xaalis parce que état buy lebal xaalis ñëpp ñi ñi bëri dañuy yaakaar ne xaalis boobu xaalis politique la donc duñu ko delloo et puis sax xaalis boobu dañ koy jox koo xam ne amu ci droit wala koo xam ne mënu ko mun ko liggéey donc ça veut dire que quelque part doxalin ni bu ñu ko soppi rek agence yi fi nekk mun nañu leen boole nag pour mu bañ a mu bañ a tasaaroo ñu am maanaam seen doole gën a gën a bëri waaye eh, li nga xam ne amoon na fi am na fi solo ba léegi eh, foofu am na ay Sénégal doomu Sénégal yoo xam ne mun nañ seen liggéey xam nañ seen liggéey il suffit que ñu am moyen parce que bu ñu yorul am moyen bu ñu yorul moyen dañuy wax rek waaye ay eh, duñu mun a avancer parce que wolof Njaay dafa ne bugg dem taxul dem mën a dem tax a dem. Mm. ba tax ne su fekkee dañuy war a soppi doxalin yi mais nguur gi na commencer par boppam fexe ba ñooñu agence yooyu mu war a créer nañu am xaalis bu doy. parce que sànq maa ngi ko doon wax ci nasaraan euh, dégg suñu réew bu pour nga mun a sax taxawal benn liggéey liggéey liggéey boo xam ne buy fayee ko fanweer junni lay fayee ko weer bu nekk liggéey boobu dafay laaj nga dugal ci nga commencé par cinq millions juróom millions ci suñu xaalis donc boo ko boolee param nga jël deux millions chômeurs yi loolu dina doon loo xam ne ay dix mille milliards de francs CFA lay doon kon pour nga mun a def loolu il faut que ñu am xaalis xaalis boobu mënuñu ko jël ci ay mastata ngir yàlla dem dem ci gannaaw tubaab yi wala bitim réew yi di dem jëli xaalis boo xam ne pour ñu ñu fay ko après dinañu indiwaat ay problème donc il faut que état mu uti ay alal bu bari mu sotti ko ci koom-koom bi loolu rek moo ñu mun a euh, permettre ñu am ndam. d' accord tey euh, donte état bi fi euh, nguur gi fi jógee euh, mi ngi doon amal ay jéego ay ANPEJ ak DER ak yeneen teewul chômage di gën di yokk at bu jot fii Sénégal ndax mun nañ wax ni dañoo lajj ci côté boobu. dañoo échoué dañoo am dañoo daanu complètement <laughs> parce que su fekkee da def benn affaire il faut que ñu gis ci mu am amélioration maanaam mu am yokkute waaye bu ñu gis ne dañu gën a delloo ginnaaw rek avancé ñu ci li ñu def mun nañu wax ne dañoo daanu ci loolu waaye euh, comme ni ma ko waxee rek toujours situation bi dafa am ñaari yoo xam ne dafa am solo ci nguur képp koo xam ne da nga bëgg a jiite nguur il faut nga nekk koo xam ne da ngay jub munoo wax nit yi ba pare jub leen munoo leen wax ni da ngeen war a respecter aar eh, charte réew mi yow sa bopp doo ko respecter lu la neex ngay def su fekkee say waa parti la Euh, lu ñu lu ñu mën a def rek nga baal leen mais ñeneen ni doo leen baal dara wala nga bàyyi situation Sénégal mu nekk ay désordre donc loolu dafa laaj instant bi loolu leçon boobu la ñu war a tiré maanaam li nga xam ne waruñu ko defaat ci réew mi mooy nañu fexe ba li nga xam ne ñoom ñoo yoree suñu réew nañu nekk ñoo xam ne c'est des gens exemplaires maanaam ay roykaay la ñuy doon lépp lu ñuy def dafa war am sens dafa war a nekk tiitur tiiturukaay pour euh, askan bi mais su fekkee ñu fa nekk du ñu def loolu puis surtout ñu xam ne Euh, état du ñëw fii pour defal nit yi waaye nit yi ñooy defal état loolu tout souvent logique boobu dañ koy perte am na état lu mu war a def mais lépp lu état def c'est pour que nit yi gën a yokk seen taxawaay pour moom état mu gën a amaat doole parce que doole état jógewul ci président de la république jogewul ci ministre yi jógewul ci juge yi mu ngi joge ci askan bi askan bi ci seen taxawaay ak seen i seen i seen i jàmbarte loolu mooy tax yëf yi di avancer donc saa yu ñu fàtte loolu rek loolu mooy indi euh, gàllankoor yu mel noonu donc président de la république Macky Sall defoon na fii ay jéego yoo xam ne vraiment amoon na yéene gis nañ ne amoon na yéene mais peut-être que nu mu doon doxalee moom ak ñooñam moo tax peut-être amuñu ndam ci mm, xeex ñàkk xëy ndaw yi ci réew mi. Mm-hmm. Euh, yow tey xëyu ndaw ñi euh, nekk na sa yitte euh, ndax ku gis turu coalition bi priorité emploi lan nga jàpp ni état noonu la war a def rek ngir rek saafaraal xëyu ndaw ñi fii ci Sénégal. waaw benn bi mooy ñi nekk ci état bi dañuy war a am li nga xam ne moom mooy lucidité lucidité mooy di doxal seen xel di jëfandikoo seen xel bàyyi affaire u xool. ndax boo yoree réew doo ko doo jiital sa xool sa xel ngay jiital bu ñu eh, jiital seen xel rek xam ne mun nañu gis situation bi mun nañu xam ne situation bi am na loo xam ne dafa laaj mobilisation damay far di wax ne toujours li gën a jàmp réew mi du ay xeex guerre di xeex sax ay ndool lii gën a jàmp fii mooy xeex ñàkk xëy liggéey parce que nit yi bu ñu amee liggéey bu ñu amee xëy bu ñu amee astuti ci seen i liggéey eh, ci seen liggéeykaay yi Eh, wax dëgg yàlla dina gën a yomb ñu mun a liggéey ak ñoom wala ñu mun a wax ak ñoom mais loolu tànk loolu amul donc dafa laaj lucide dafa laaj tam fit munoo jiite rew mi ba pare nga nekk ku ragal su fekkee danga gis ne lii nga war a def pour sa réew nanga nga koy def bul xalaat ne su ma ko defee dinaa perte sama place wala su ma ko defee dinañ ma rey wala du ma et cetera tiitange warul ànd warul nekk sa biir xool donc da nga war a jël tiitange bi génne ko parce que fit rek moo mun a moo mun a dawal yëf yi parce que dara dara yombul amul dara loo xam ne mun nga ko def te du la indi ay ay ay ay ay ay jafe-jafe mais yow yaay xam ne jafe-jafe yooyu yow yaa koy choisir sa bopp donc sa veut dire que dem courage lucidité loolu am na solo mais ñetteel bi dama koy bantuwaat ko nañu fexe pour indi xaalis ci réew mi bu xaalis bi amul ci réew mi wala génn xaalis ci réew mi ñaar ñaari façon wala ñetti façon am na benn façon bi gu nguur eh, président Bassirou Diomaye fay mun na fexe comme nu mu koy waxee génn ci CFA bi nu am sunu xaalis bopp bu defee loolu dina mun am xaalis bu doy ñaareel bi mun na uti ay ressources yi nga xam ne moom moo fi nekk moo xam suuf si la moo xam pétrole bi la moo xam gaz bi la moo xam or bi la pour ñu gën a yokk li nga xam ne moom mooy wàll Sénégal ci yooyu yooyu richesse ñetteel bi mun na sukkandiku ci diaspora bi maanaam sénégalais yi nekk bitim rek nga xam ne ñoom dèjà seen loxo mu ngi ci koom-koom bi bu baax a baax a baax mais mun na fexe am ay ay pexe. pour que ñooñu ñu gën a eh, nekk ñoo xam ne dinañu indi xaalis ci réew mi pour ñu mun a liggéey ñeenteel bi mooy fexe ñi nga xam ne moom mooy secteur privé bi muy secteur privé national wala feneen ñu taxawal ay usines yu bari ay kër liggéeykaay yu bari nga xam ne mun na xecc mun na permettre yeneen ñi mi nga xam ne mooy entrepreneur yi ñu mun a eh, taxawal seen kër liggéeykaay ci seen wet mais il faut que ñu am quatre conditions yooyu suñu amul loolu dina jafe lool mhm. euh, tey secteur privé am na rôle bu am solo bu muy joué ci euh, xëyub ndaw ñi euh, naka nga jàpp ni état bi noonu la war a accompagner secteur privé bi. oui euh, secteur privé buñ ko waxee dafa neewu Sénégal donc mënuñu wax ne secteur privé mooy mooy mooy réglé maanaam mooy. tax ñàkk xëy di e, xëy ñàkk xëy liggéey e, ndaw yi mun na faj mun na faj déedéet ndax secteur privé bu ñu koy xayma lu néew néew la te boo xoolee li nga xam ne moom la ñuy wax secteur privé li ci bari ay e, jàmbur yi ñoo ñëw suñu réew mooy France mooy yeneen yi ñoom ñoo ñëw taxawal seen projet yi boo gisee yoon yi ñu taxawal yu tabax ci réew mi wala construction yu mag yi ñu def ay waa bitim réew ñoo koy def donc loolu profité wuñu jox leen xaalis ça ne servira à rien boo jëlee par exemple le secteur de la téléphonie boo jëlee téeméer liggéeykaay bu bu Sénégal benn rek la ñu mën a la ñu la ñu defar ñoom benn un pour cent donc loolu defar neew donc continuer nañu leen jàppale ñoom li ñu bugg def li ñuy def mooy création de richesse parce que ñoom li ñu fay ci impôt mooy tax état tam di fonctionner donc état daf leen war a protéger aar leen accompagner leen mais su fekkee état dafa bugg ñu euh, euh, ñu régler problème faj problème euh, ñàkk xëy ndaw yi du euh, secteur privé moo koy def waaye ce sont les entrepreneurs ñoo koy def moom état ci boppam moom moo koy def par commencer mu commencer di recruter policiers yu doy gendarme yu doy enseignants yu doy maanaam fonctionnaires yu doy loolu ci moom lay commencer donc bu defee loolu Euh, yaakaar naa ne yëf yi dina mën a avancer. Tamba Danfakha ñu ngi lay sant di la gërëm. di la sant di la gërëm soxna ci fàttali yaa jiite coalition priorité emploi. coalition priorité emploi. coalition